loolu weesoo ñu wax ci li waral coow la déggee de Boy parce que mun naa deux question li gars yi di wax arrêtera Boignan de 2 ak pour atteindre enfin son cible principale à Guédiawaye mais aussi le penseur Diwal la déggee de face au combat de sa survie parce qu'il doit impérativement battre le fils de De pour se regagner sa place dans la cour des grands bu doon combat bu am solo comme ni ngeen ko waxee coow li bëri la rigueur d'or don ki nga xamante moko dess ko dese géejuwaay ngir mu daat koy jaar ci kawam pour meuna egg ci Balla Gaye 2 mais ndax lolou dina yom ndax la rigueur 2 aussi combat bi da ko war daan ngir meuna amat place am bi nga xamante mom la amone dans la cour des grands ciow lu beuri ci wa geedji way wax ci yow tamit tay nga paré pour tontu ci lolou grand combat bobu lo ci wax non combat bobu liñ ci wax dañuy ñaanal boy ñaar jàmm la ñaanal la dëgër jàmm ñom ñaan ñep ñu nekk ci tan ku ci nekk indi kàttan mais ndam li mom pigine lay dugg léegi ya joxe ndam joxewu ma ndam mais dama xam booy ñaar qualité yi nekk ci moom nekkul ci Lac de Guiers du benn ci cadre bëre Boy Niang li muy bëre Lac de Guiers bërewu ko te xeex bi muy wax day dëggal boppam Lac de Guiers man leen rek laa koy ñaan comme li mu wax ne da koy def Boy Niang billaay bu mu ci tegg dara Sénégal ko seetaan xam ma def nañ signature contrat Lac de wax na ba saaga Boy Niang non da ko saaga nit ñaa ngi dégg quoi man maa ngi woon signature ba non da da koy duma la dëgër bu waxee day duma booy ñaa day wax loo xamante ni pour waa géej waaye génn jox ko nopp mais la dëgër mënul duma booy ñaa loolu loolu loolu loolu kuy seetaan làmb saxul ngay dund làmb mënu nekk la dëgër bëri na feeg Modou Lo téye ko di ko humilier ba mujj gi bi mu demee ci saaku yi ñëw dafa lëng booy bi si xale bu ndaw te booy ñaa gën a nekk ñooñu xale macha allah moo leen gën a xam sport bi ni ñu koy defee la dëgër ak booy ñaa dama ne la làmb moo leen boole mais bu ñu duggee ci biir géew bi la dagger dina bayyi beure xarañ ngay wax li de li nek ci mom isa mi ci boyña boyña day moromu ñooñu modlo lay tegal ni de boyña day moroomu ku dul modlo wa nga bay wax ay ñeneen yow ku xolul modlo da ngay xol la dagger ci la dagger lañuy wax nak mais dama ne la qualité yi nek ci boyña nekul ci euh, la dagger du benn loolu dañ ko koy nangul loolu suñu borom mo koy def gis na boyña bi muy ñew di ak les de Eumeu Sène daa bëree dimanche daan la dëgër ñu xëy lundi booy ñaa war a bëreeg les de les de indi poids muy posé ay 120 kilos booy bi nekk 80 kilos ñu naan fan la koy jaar bi mu ñëwee da koo daan te la dëgër képp ku booy ñaa di bëreel géejawaay dem na conseiller la te la dëgër fii lay tasanteeg Modou Lo Balla Gaye moo ñëw naan ko nii nga war a def nii nga war a def ci biir géew loolu image yaa ngi fi ñëpp koy seetaan nga ne mu mën na bëre la dëgër wax ma ban mbappat la dem jël saaku ceeb wala paquetu suukar. la dëgër dugg ci classe bi en ah, dëm lu toj classe bi nga nga may tegal nga may wax lan man déggul man sànq ci biir wax ji nee naa la la dëgër gudd rëy moo ko indi ci làmb la dëgër ban jël la daan ñu bàyyi ko top 5 mu yàgg fa fii boo yi mën a bëre xam nañ leen la dëgër bokkul naa la dëgër bàyyi waaye ñu naa man daa yow de yow mbër boo xamante da ngay jël sa taat bi rek nga dénk ko ginnaaw saaku yi kenn du ma daan rasu rasu ah, grand bi muy toj classe bi daawul bëree noonu de yow seetaan nga ko diggante fàtte xaju ñan la doon bëreel ana ñu xeex ak yow daal di ci biir. doon bëreel ana ñooñu. ñooñu Tapha Tine mi ngi ci làmb ji. Tapha Tine mi ngi ci làmb ji daanu ko xale yi ñoo màgg loolu dañ koy nangu suñu borom moo def loolu booy ñaa ñëw confirmé tey booy ñaa heure bu daanee géejawaay kenn yoonu làmbam boole ko keneen waa géejawaay dañuy jël beneen përëx ndoll boole ko keneen tey daan na fi ba war a bëreeg Balla Gaye ñu ne ko Sa ci des mu téye Sa Thiès dóor ko daan ko jël bu rëy. Lac de Guiers du përëx ndoll la de Guiers billaay wallaay taalaay bu ñu ko tegoon ci yoon rek su fekkoon na làmbay atte rek ñu teg ko ci yoon Boy Niang Lac de Guiers waruñu woon bëree Balla Gaye Boy ñaa ñoo woon. Ah, yaa ngi dégg li ngay wax yow. billaay wallaay taalaay lu leer laa lay waxuma pour far waxuma pour dara. billaay lim bi lañ bëgg a eggale rek mais lim bi day mat. Lac leen ko jël di dem ci ci Balla gay noo loolu xel xalaatu ko waxal lu yenu maanaa la Lac de Guiers bokk ci lim bi lim bi Lac de Guiers ciy bokk. nga wax sa bëgg-bëgg. non du bëgg-bëgg. lu am laa lay wax la dëgër booy ñaa bisu làmb ja la ñuy xam li ma leen wax dëgg la du benn bëri du benn. grand ñi waxagum géejuwaay ñëpp su ma leen laajee dañ yow sa mbër booy ñaa xeexu tàppet lay def te ñemul a xeex la dëgër te ñim daan géejuwaay yëpp dafa daa dafa daw ba daan leen lan ngay tontu ci loolu. booy ñaa kan la bëreel nekk tàppet daw amul booy ñaa ku muy bëreel moo lay song. moo ak lees bi nga tudd nii nen làmb jooju taxawul dafa moytu ba daan dafa daw ba daan. kan moo ko wax. digganteem ak les deux waa Géejawaay ñoo ko wax ñu waxagum ci làmb. waa Géejawaay comme ñan la xam nga tamit waa Géejawaay dafa rëy quoi da nga waroon wax kenn koo xamante ni da nga ko introsé mu wax mu nekk kii man mun ko mun cee wax les deux booy ñaar dafa ñëw. xam naa léegi da ngay ci kàddu yooyu rek du ma la limal ngay attaqué. attaqué wu ma xam la wax sànq les deux posé presque les deux jamono jooju les deux est ce que toogul ay sept ans daanuwul mbër boo jox avance mu teggi ko fi ngay bëreeg benn xale bu ndaw boo xamante bi mu duggee ci làmb yow rawee nga ko làmb ay 10 ans booy bi ñëw fekk la ci biir géew bi imposé la li mu bëgg a def te ñoom ñoo ñëpp di wax ku dugg ak booy ñaa ci biir géew bi li neex booy ñaa ngay def ba ni ngay paree les deux booy ñaa da koo jàpp bëreloo ko daan ko xeex ak moom seetaan leen vidéo yi xeex ak moom xeex ak moom xamale ma la te aussi benn benn champion bu mag waaw bu dëkk géejuwaay nee na Boy Niang bu ñu xoolee tamit daanu fi mosu fee daan jël bi spectaculaire jël boo xam te ne dañ koy coow te ñim daan géejuwaay tamit daan leen taxul mu mën leen. xanaa kon miis ak ay kon seetaanu ko Boy Niang yóbbu na miis top 5 yóbbu na ay kon top 5 am na keneen tamit ku ndeysaan léegi jaaykatu yàpp la sax géejuwaay xam nga nan la tuddati kooku Boy Niang moo tax mu bàyyi bëre xaw na leen nag c'est nag lenn rek moo moo leen solal géejawaay. am na comme waaw moom laa la top 5 bi xam leen rek moo leen sonal géejawaay ñoom mënuñu digérer booy bi te booy ñaa fi mu toll nii suñu borom moo ko fi teg loolu dañ koy nangu gis nga ki fi suñu borom teg boo ko bëggee simpi yaag sunu borom la nañ bàyyi yi ñuy def xam nañ na Lac de Guiers booy ñaa mu ngi mel ni Burkina Faso Brésil. mais grand am nañ droit tam gëm liñ gëm yow da gëm ne yow sa mbër du tax Lac de Guiers ñoom nee sa mbër bu xeexee ñu wàccee ko la xool ko ci benn côté. léegi dama lay wax lenn Baye Ndiaye su bëggee lenn. mu jël 15 millions ci xaalisu booy Niang jël 15 millions ci xaalisu Lac de muy trente millions Baye Ndiaye wuti ay sponsor yu dëgër ñu yóbbu ko Maris Ndiaye def ko entrée fukki junni ndaanaan ñëpp ñëw toog ñu ne dañoo xam làmb nag te ak dégal foofu sax ñu ne dañoo xam làmb làmb ja lañ leen yóbbu mais ñu ne Lac de Guiers dafa mën a xeex ñoom ñëpp ñëw dajaloo ñu def ko entrée bu am doole ay ndaanaan toog ñu wutal leen riim. kon da ngaa sa mbër a dàq xeex dama lay wax rek déglu rek ñu wut ñu tegal leen rim dugal leen ci ñoom ñaar booy ñaar mën nay dóor la daguère fii ba suba du fayu du benn candum waxuma la ay waxu faral booy ñaa wala bëgg booy ñaa wala dara damaa xam qualité yi nekk ci booy bi. kon da koy dóor daw génn saako yi. fu ñu def riim fan ngay génne saako yi dama ne la nañ def loolu Baye Ndiaye na def loolu ngir yàlla bu déggee lii na ko proposé la daguère ñu nangu nañ na jël 15 millions booy ñaa teg jël 15 millions la daguère teg muy 30 millions. mu yokk ci leneen def li ma la wax. mais yow seetaan nga Lac de Guiers Eumeu combat bu njëkk bi seetaan Lac de Guiers ak Modou Lo dama ni nga sous-estimé waa ji xeeb ko loolu moo ko de damaa xam booy ñaa man li ma xam ci booy ñaa moo ma doy man duma gis booy ñaa naan damay jël Lac de waaye loolu dafa logique man booy ñaa naa ko gis ci làmb mu saf sàpp mooy dem naan damay xool keneen yow pikin nekk ci làmb ji saf fi sàpp kuy wax pikin nga bëgg a bëreel kuy wax pikin nga bëgg dëkk tamit nag nañu xante dëgg nag. lii suñu borom moo ko def nañ nangu dafa am loo xamante ni su ko suñu borom defee dañuy nangu ñu féexal xol yi Lac de Guiers moom ak Boy Niang dama ne la bu bis ba jotee li ma la wax dadul neex a dégg de càndum di nga ñëwaat nga laajaat ma de la de Guiers day dégg muñal de hmm. non du bëgg bëgg de qualité yee bokkul qualité yi bokkuñu Boy Niang dafa am lu nekk ci moom billaay nekkul ci Lac de Guiers waxuma waxul kii gis nga ba parents yi damay dégg ay nit naan damaa xam làmb maîtriser làmb naan Lac de Guiers dafa naqaree daan Lac de Guiers dafa def nii non Lac de Guiers nag. boo gisee ñuy wax loolu gis nañ gis nañ premier combat Lac de Guiers may ma rek man ci ñëw càndum ñu naan Lac de Guiers dafa naqaree daan Lac de dafa def lii wëg lii. Lac de Guiers naqarewul daan Lac de du dul bëree. ba mu bëree ëmma da koo daan. bu njëkk ba bëreewul ëmma seen da ko bu bi bu njëkk ba Eumeu Sène du ko humilier dóor ko mu kaawute Lac de Guiers dénk boppam saaku yi ne du fa jóge bi mu ñëwee ne day dëggal boppam Eumeu Sène du ko humilier da ko daan nañ bàyyi loolu. waaw combat bu lañ bëree ba Tapha Gueye di yuux naa li mooy combat combat bu explosif lañ bëree. xam nga kan la doon yuux xam nga kan moo tax Tapha Gueye doon yuux Eumeu Sène du waa Pikine de Eumeu Sène a def yu fi ndaanaan mu bëree. mooy songu mooy attaqué mooy bëree ma def na fukki kele ak juróom-ñaar la dageer ban kele la def. fàqat lii la xam nga nag càndum yow est-ce que bi nga càndum est-ce que ñi ngay introsé bi ñu duggee ci làmb yàgg na. la càndum càndum làmb làmb daa am lu ma ci fekke de. càndum mbappatu mbay sàmb yi fii. ndaanaanu géejawaay mën naa la limal ñan ñoo nekkoon ndaanaan daan génn muuma ci la bokkoon. ak ndem si yàlla si. doomu père alin Sey bi gaañu ya ko yàlla yërëm te xaar ma faal sëy dañoo yàgg seetaan gis nga dama lay wax leen ne Paate Baldé fi nekkoon Eumeu seen Ousa numéro 2 Ousa Saw ba tamit voyage magu Papa Saw ki ma la wax léegi tamu gaañu ma faal sëy muuma ak booy séeréer Abdou juuf nii sax daan na jéngu paren saa di ñëw mais dama ne la naan yi daan jël saaku ceeb ci mbappat yooyu ñu xamoon leen Eumeu seen la woon Paate balde dama lay wax lu leer waxuma pour far waxuma pour dara billahi mais mbapat yi boy tollol ni yiñ tollol waxuma ban mbapat la boy dem tassante ak mbaru geejay mu daan len amul sey numéro 2 daan ku nek mbapat kan la kan la non dama lay wax non non ci cadre ay ñom boy ñaa ñom ama ban mbapat lañ mësa tassante ak ay mbaru geejay mbaru geejay daan len ban mbapat la ñu wax mako amul mbapat bi waa géej gi tëggoon fii booy ñaa ñëw na di bindu ñu bañ ama moo jël nag ba non dañuy waxtaan nag defal naa nga dafa am yoo xam ne il faut ñu sulli ko ñu waxtaan ci tamit tàndu day baax ci ñu xam làmb am na ñoo xam ne dañuy xam làmb te xamuñu làmb la dëggeer kenn duma limal na jël na paquetu suukar fii booy ñaa daa mbapat boo la dëgg de mbapat Alioune Seye de moo doon yóbbu làmb muy mbapat mbapat mën nga ne yow seraanoo mbapatam mais mbapat bi man dama bëgg rek nga laajal ma la dëggeer lii na tontu lii nga ne ko la de Guiers ban mbappat nga dem nga daan fa champion bu nit ñi xam te mu nekk ci réew mi mu tudd tur bi bu mu fi wax na ku dëkk ay Burkina Faso de wala naan la ay bàyyi na bëree tudd benn tur boo xam ne kenn xamu ko na wax champion yi nekk fii tey boo dee lim booy yi tey dañ naan la daan tey booy ñaa daan na marle mbappat daan na waaw d'accord rek dama lay wax rek non ñaar ñun rek laa li ma daan na marle mbapat daan na pambaay mbapat te ñooñu ñu ngi ci làmb te ñëpp xam nañ leen géejawaay jox nañ leen cër ay ndaanaan lañu mais la de Guiers ban ndaanaan la daan la de man qualité bëreem bi ñuy wax anamu Lac de Guiers xeex yi muy wax ay boo damay xeex du def dara. sponsor la de. sponsor da waalo boo xamante ni yow bàyyi mooy Lac de Guiers man Lac de Guiers leen rek moo ma metti ci moom billaay wallaay taalaay lii muy wax nii la de du ko def. waaw leen a jël éprikit bi de. te gëj naa ñëw nag te ñoom neen combat bi lépp la ñuy dekkilaat. Lac de Guiers de xam nga la may bañaat. mu teg fa lëwal deuxième troisième nit ñi merati. du ci am waa Géejawaay ñëpp neen da leen di jël si foo foolee su loolu looleen wàq ñu ñu suul ko. waa Géejawaay de ñoom xam nañ sax booy ñëwaat c'est que ñu wax nii rek ñoom xam na ndeysaan ki tëgg làmb ji Géejawaay la dëkk te sama rakk la sama xarit la nit ku baax la Baye Ndiaye. xam naa dañoo bëgg làmb Baye Ndiaye bi gën a am coow dina am coow nag mais nañ ci def attention dina am coow bu baax a baax a baax làmb lay doon mais ñoom xam nañ ne sax gëmuñu la de guerre. waaw ku Modou Lo mënul yëngal isa Boy Niang mën na ci yow dara. ku Modou Lo mënul yëngal modlo yëngalul kan la dëgër yi c'est que man buñu bayyi modlo mënul yëngal la dëgër la dëgër xana mo loolu gàcce la ci mom modlo bi mu duggé ci lamb nek boy bu ndaw japp la dëgër fi nga naan mënu ko yëngal ñu bayyi loolu. bëri na ñaar yoon de mënu ko daan. boy ñaar la dëgër ku mag doole ndaw ak doole mag du ben la dëgër muy dugg ci lamb boy ñaar mi ngi jàng école bi muy dugg ci lamb boy ñaar bëriwul sax mbapat xalé bi di ramper di liggéey di liggéey di liggéey bu suñu borom indi ko fi mu ñëw di def preuve yu leeree nii senegal gi yëpp di teg seen bët Boy Niang musta bëreeg nit ñu ne Boy Niang kii fekk na ko fii duma na ko dem na ardo daan na ko jël bu rëy Boy Niang moo lay duma moo lay songu yeneen defet yi mu jot am nii ci ginnaaw billaay ñooñu ko doon daan xool leen fi ñu toll ci làmb ak fi Boy Niang toll nga xam ne liggéey rek a wóor. grand pour jeexal ci combat bu fan nga fan nga jàpp ni Boy Niang foofu la mën a jaar la de guerre. mun na ko jaar fépp fépp fépp làmb ji loo ci xalaat rek ñun pare nañ ci ñoom buñ ci xalaatee pare nañ ci cent ñun pare nañ ci milliard. parce gis ni Lac day toog ci ay tànkam te neexut a juumloo. waaw léegi nga ne ma bërekat la kuy toog ci ay tànkam. stratégie bi ngay bëri loolu la yow nga ñu ne kat nga doo ñëw nga toj bëre bi ñu jàngat ci bëre bëre ABC la ba mu jeex tàkk bëre ay saar la yu ñuy tari la de Guiers mokkalu ci benn saar yëpp la mokkal. déggoo di ma la wax xanaa nee naa la képp ku yore sa lijaasa boo paree Pikine ngay dugg ñoo la koy signeel tamponel la nga dem. ñëpp di wër mi ngi géej waay de doomu Double Less bi. kan Balla Gaye. moom ngeen di wër moo tax ngeen bëri la de guerre. xam ne kooku gën a tàppet sax ci làmb ji. léegi man Balla Gaye man man Balla Gaye xam lu ma jaaxal Balla Gaye booy ñaaw avant boo jël Sa Thiès bi Sa daanee toog ci plateau bi dafa sumb yéreem di wane formam na jox leen ma avance mu yóbbu ko ñu jox ko avance bi ñu. waaw d'accord foofu laay waxee déglu ma rek ñu jox ko avance bi booy Niang daal daan turandoo papaam lees de dakkam ñëw dëggal boppam mu duma ko daan ko man su fekkoon ne ku am fit laa wala ma nekk jàmbaar wala. gay ne rakam daa saboté lamb. ma rek man bàyyi nañ bàyyi loolu nañ bàyyi heure Boy Niang amee victoire Guédiawaye ñu salteel ko man su fekkoon ne ku ku ku am fit ku ku ñeme li may def dama naan jox leen ma xale bii looloo doon wax ji mais Lac de Guiers la ñu puus mu ñëw te ñoom xam nañ ne Lac de amul bëre bi. la de du du naan bu tax nit ñi di wax ci kanamu Boy ñaa du benn qualité bëri yi du benn dama la koy waxaat nga dégg ko càndum am na sañ-sañ bi am na kàttan càndum la de amul sañ-sañ bi kàttan bi bu ko amee kàttanam du feeñ bu bis baa càndum dama ne la doole doole ju bari xam bu bëree ko ëpp doole gis nañ fi kuy pose cent vingt kilos benn booy boo xamante ni laa lay wax nii ni euh, càndum billaay moo lay diriger di la jàpp di la yónnee ay courses demal raxasal ma sama oto bi demal defal ma lii booy ñaar catégorie googu la si ñoom nañ yore seen kàttan la dëgg dama lay wax benn affaire li mu wax Sénégal yëpp a ngi koy déglu loolu rek laa koy ñaan àddunaa ko déglu wax na waat saaga na booy bi ne ko dama lay duma ne ko danga ngaa réew naa la corriger li mu wax àdduna di ko déglu bisu làmb ja na fexe dëggal boppam bu mu fa teg lewal deuxième jëmal troisième xam nañ ko làmb ji nag Baye Ndiaye bi ko tëgg seen nawle la xale la te xale bu ndaw moo tëgg làmb ji man leer na ma ne Lac de bis bu ñëwee dëggal boppam. Sénégal ñu ngi lay dégg waa Géejawaay ñu ngi lay dégg. Grando li ci kanam raw liy gët sa kàddu gu mujj lan ngay tàggatoo. waa kàddu gu mujj maa ngi nuyu Pikine di kontaan nag seen sit bi ndax lii nga def mooy yaatal tey bul ne Géejawaay laa dëkk rek nga jàpp waa Géejawaay di leen jël bu yàggee sax nit ñi duñ la ñemee mais comme lii nga def nii dama lay conseiller lii tey mun nga dugg jàmm gën tey mën nga dem parcelle waa parcelle am tontu ci li ma wax. tay mun nga dugg parcel mun nga dugg jàmmagën mun nga dugg caaroy mun nga dugg faas fépp fu mbër nekk wala sportu sénégal lu koy poussé tamit nga dem laaj leen am nañ ci droit ñoom ñu wax man daal li l' essentiel lenn seexu yàlla yi nga xamante ñooy seexu booy ñaa yi amet ak babacar maa ngi di gërëm ak seen copain bi ñëw xam nga ma la di gërëm sama benn booy boo xamante ni comme ni ma ko waxee woon sànq rek mi ngi Maroc Modou lañ koy wax ak Cheikh ak Mami Ndiaye Mbay Tos Laay Gueye cheikh dega souleymane saw ak euh, afi ak alex Cham, ousmane diongu day laké xumbal tafa pikin mam mortal wa ma ngi len di gëreum bu baax baax baax ndax ñooñu dama gis ben affaire bo xamantene dañ koy def pikin mu marqué ma nekkuñu ci réew mi nak ñooñu ñima la wax nekkuñu sénégal mais heure bu pikin nekké ci combat sen téléphone sen kattan Sen sen luñu am dañ ko ci def ndiasa nak maa koy jox gërëm bi di ko nuyu moom Baye Fall la Ndiassé lu sax ma gëm ko dafa nekk nit ku direct nit koo xamante ni moom bu nee sa nitam nga rek buggul dara jege la buggul dara laal la nit ku baax la mu wax ma ci yow ay qualité yu rafet man moo tax ma dugg ci yow yow nga nekk nit ku simple bi ñu déggantee téléphone dañoo kaf loolu mooy àdduna àdduna amul solo càndum suba mën na dem ba nga xamante ni tey yow li may jariñ ci yow lay jógee suba mën na dem ba man it li may jariñ ci yow ci man lay jóge àdduna amul solo di nuyu kii yore sa caméra bi borom baax la Bécaye Kounta ñëw na ñu kaf ñu reetaan te c'est la première fois ñu gisee bi mu ñëwee dafa jaar sama tur te loolu lool mooy àdduna àdduna amul solo li ma fi wax nii nag bu fekkee ne ay kàddu yu dëng da cee am mu kenn ñi ngi jéggalu xam la ah géejo non géejowaay info site bu neex la yéen a ngi bomb mais leen nag laa leen di wax li ma la wax sànq géejowaay info nekkul géejowaay ko moom mu d'accord tur bi gox boobu nga dëkk am nga droit nga tuddee ko tey mi ngi mel ni surtout Pikine bu tudd Pikine info am na si droit mais da nga yaatal boo yaatalul gars yi duñ la ñemee càndum site bi dafa am doole site bi nit ñi dañ koy seetaan te nit ñi dañ laa respecté jox la cër yow taxawaay bi ngay taxaw dangaa teg sa chaise njaaxaar naay nga toogee waaw na la nit ñi na la nit ñi ñemee yow ñëwoo pour pour raayal kii wala fa dëkk naa géejawaay mbëru géejawaay laay faral tey bu ma la déggee li ngay interroger mbëru géejawaay boo laajee ku xamul dëgg na naan kii dëkkul géejawaay ndax kàddu yu dëggu ngay wax nit ku dëggu nga nit nag am na loo xamante bu nekkee ci moom danga ko koy nangul tey du ñàkk nit di la xalab danga koy nangu ñaar yi dafa am ci àdduna waaw ak déet bu kii nangoo kii kii danaan jox ma bu kii bañee kii danaan na fi jógee yoy dafa am ci aduna te nit ñi nañ koy duggal seen xel di dem ak mom am lo xamne nak suñu borom a def ci nit li suñu borom def bané di ngeen yoré seen site bi man fekkewu ma fuñ ko doon bindé xawma fuñ ko défé ci aras nañ leen ñaanal ngeen am jamm di ñaanal sénégal gi yépp am jamm di ñaanal pikin fi ma dëkk jamm di fi yendu di fi fanan ak doomu réew mi fuñu mëna nekk ci aduna suñu borom dafa leen jamm pikin nak champion yi fi am combat yalla na leen suñu borom may ndam yu sedd guy guy te mu jik pikin AS Pikine yàlla na jël championnat bi ci kàttanu Seydina Mohamed kontaan waaw bokk ko ak euh, di mu doon grand bu euh, doon waxtaan bu am solo mu sànni na ci xeer nag ni mu ko faral di defee daal di attaqué yaakaar naa nit ñi dégg nañ ko ku ci nekk di nga joxe sa appréciation daal ciy wax